di ko topp dépassé dañ leen sànni ay grenade ak yi demee noonu mais taxul sax ngeen bougé lan mooy seen lan mooy seen secret loolu lay wax gars yi mooy yàlla rek mooy suñu secret yàlla rek ko nee na ñun ay rebelle lañu ñun ragal ñu fetal ñun dañu doon dugg ci fetal yi dem baal ñun dañ ko tàmm loolu moo tax ma ne leen barke dëmb ñun lacrymogène yi dérangé wu ñu barke dëmb ba ma fekkee ci terrain bi dama rañ ak góor ñi bu ñu dooree lacrymogène ñoo koy reprise fay ko ñu dugg ak ñoom dellu ma ginnaaw nee naa leen man Sonko jaral na ma lu nekk sama dalay dinañu daga ci yoon ngir Sonko nee nañu ñoom mystique la ñu gëm nañu xam ne ni teen mystique fii Ziguinchor la nekk fii la ëppee makisal bu buggee jàmm ñu ànd ak mais bu buggee jàmm du am jàmm dinañu def dinañ ko defante ak moom ba mu sax fap nee naa leen bu nee mystique dinañu ànd mystique ak moom nu mu mënta def nag ni nee na ko buum bi fii la nekk dañ xaar mu yegg ci escalier bi ñu xëcc ko mu daanu. ñu ngi fi ba saa yu ko après rek. ñun bu ñu bëggee fi ak moom. Sonko ñun ay gardien Sonko lañu fan yi suñu kër yi ci suba lañu gis jeex na. bu ñu ñëwee fii ba suba ci suba fii la ñuy dëkk léegi fii la ñuy dëkk dañ ko bëgg a wan ne fii du cité góor gi fu nga xam ne lu leen neex ñu embarqué ko ñu def ko lu ne mais fii Ziguinchor nañu ñëw dinañu dóorante lacrymogène yi ba fu mu sës